téléspectateurs yi ñu ngi am mbégte ak kontaan de addu ngeen di teewlu ci seen télévision Equivox TV tey nag euh, ñu fas yéene def benn taxaw seetlu xam ngeen ni ci seen émission làmb yi nga xamante ne daan nañ leen ko indil wala bu ñu demee stade saa yu combat jeexee danañ leen indil taxaw seetlu mais taxaw seetlu bi mbokk yi mu ngi tombeek jamono joo xamante ne ci àdduna bi mu ngi am feebar boo xamante ne moo laalandoo mën naa wax ñëpp muy Covid 19. mu daal di ñu jaaxal lool tax ba émission làmb yu bëri daal di taxaw mais làmb daal di taxaw waaye bu ñu ko defee nag yéen yi nga xamante ne yéenay suñu téléspectateur danañ leen indil nag ay taxaw seetlu yu am am solo jëm nag ci combat yi nga xamante ne da euh, waroon na fee am ñu daal di ko arrêté bi ci gën a fës nag muy combat Papa ak ki nga xamante ne moom muy Siteu mu waroon a am le 5 le 5 avril bii passé la waroon a am. ñu dem xooli ji ñaari état physique gu mbër yi ñu daal di dellu siwaat mbokk yi. reporté bi ñu reporté làmb ji ki nga xamante ne moom mooy Siteu la gën a arrangé lu tax Siteu dañ koo euh, gis ni mu ñëw ci combat bi maa ngi ci doon wax ak suñu papa Maxime Bergane ma ne ko damaa gis ni Siteu dafa perte pois bu bari foofa ca MMA bi muy jógee États-Unis perte na lu bari ci pois parce que Siteu bi nga xamante ne gisoon nañ ko mu ñëw face à Zarco boobu pour man moo war a jàkkaarloo ak Papa Sow pare Siteu bii ma gis. mu waroon a ñëw la 5 damaa jàpp ni état de forme bi naam dana am physique mais làmb ji du loolu rek parce que day neex a takk bu boobaa mais Siteu boobu tooyul Siteu boobu il était trop musclé laa mën a wax gisuma Siteu tooy ba bi ma ko laajtee maximbergan Bergan Maxime Bergan ma ni bu noppalee ko tuuti yaram bi dana ñëwaat. ce euh, poulain Siteu mhm. mu nekkoon États-Unis doon euh, def foofu li nga xamante ne moom mooy MMA bi ma mhm. tasee yow laajte la nga ne ma li nga xamante ne moom mooy préparation MMA ak lamb du ñu benn bu ñëwee mhm. fii ñun ñoo koy gérer alors mu jóge ci préparation boobu ñu teg ci ay quelques mois mu daal di ñëw ci làmb xam nañu bi mu fa nekkoon mu ngi nekkoon ci préparation MMA combat MMA nekk fa woon pour musculation d'ailleurs bi ñu ko gisee état bi bokkut ak par rapport bi daan dem di préparer li nga xamante ne moom mooy làmb moment bii nii ndax ci diggante fii ak làmb ji di am dana génnaat ñëwaat wala fii lay toog. waaw xam nga dafa jege. ma mu génnaat mais li ma la wax rek MMA foog nga foog nga gaaw foog nga mobile. Hmm. moom sa yaram hmm. ndax. sport de combat yëpp la ñu boole def ko benn benn benn benn benn benn kii benn discipline kon moo lay wan ne boo mobilul gaawoo euh, doo ci doo ko doo ko mën a réussir. Mm-hmm. mais nag sama xam-xam bëriwu ci loolu sama xalaatu bopp la rek. Mm-hmm. mais la moom xam naa ci tuuti xaw ma ci lu bëri mais xam naa ci tuuti. Mm-hmm. xam naa ne boo wooyofee bu ñu la këfee mën nañ la yegg fu la neexul bala ngaa xalaat ñu daan la moo waral ba nga waxee loolu may la nag fee dafa wooyofoon foog mu jël pois pour mën a taxaw ci ay tànkam bu ko defee li mu bëgg a liggéey mu liggéey ko euh, loolu nag ñu ngi ciy liggéey. te xalaat naa ne bu ñu demee bala cinq bu sumee ko danañu xam ne liggéey nañu incha allah. mais ci di ñaan nag suñu borom ñu ci ndam. ci laps de temps bi est mën na fee diis comme ni nga koy waxee par rapport ak muy jógee États-Unis parce que xam nañ ne sportif pour mu jël euh, benn masse musculaire bi du yomb wala bu fekkee jël na ko mën na kaa handicapé ci jour combat. mais bu dee sportif nga xam nga ne liggéey boobu mooy gën a métti sax jël poids parce que la ngay daw muy bëri loolu doo ko daw fii li mu doon daw da daan daw lu ëpp 15 kilomètres. fii boo noppaloo wàññi rek da nga jël poids bu dee sportif ko pour 10 moo gën a yomb. wàññi poids moo gën a jafe. jël poids moo gën a moo gën a yomb moo gën a yomb bu dee xam nga dara ci sport. parce que mbër dafay tooy mbër du MMA làmb fii niñ koy defee ak MMA du benn parce que MMA li ngay daw dafa bari li ngay karjo dafa bari li nga footing li ngay footing dafay bari hmm? te ci tappi ngay ngay liggéeyee li ci ëpp te tappi ñëpp xam nañ ne boo ciy liggéey. noo def mu wàññi li nga xamante ne moom mooy masse adipeuse bi nga xamante ne yow di nga am donc Siteu combat bi yaakaar naa nii ñu ko renvoyé mën na ko permettre ba ñu gisaat mbër boo xamante ne mbër buy jëlaat pois la parce que dana ci noppaleeku tuuti donte ne dana entraîner mais dana am temps masse musculaire bi daal di ñëw ci kawam moom Siteu quant à na gisoon nañ ne Papa Sow bi ñu demee foofu euh, ci komba ki nga xamante ne moom mooy franc bi dem fa gis ko Papa Sow il était fin prêt mais dafa pare pour bëre le 5 léegi nag nan lay aborder waatee parce que ban état physique la Papa Sow nar a ñëw parce que bu leen bu ñu sonn ce qui est mooy Papa Sow na xam ne Siteu buy ñëwaat ci combat bi dana indi pois bu doy waar man maa leen ko wax parce que dana fekk mu noppaleeku yaram bi dana ñëw. doole ji dana gën a yokk waaw Papa saw mi nga xamante ne xam nañ ne moment bii mu ngi contact géej ànd ak ñoom Modou Lo ñoom Yékini Junior est-ce que balaa boobu bu changé wul méthode est-ce que du du usé est-ce que yaram bi est-ce que doole ji est que doole ji du teel a jeex est-ce que warul arrêté affaire yi xoolaat ni nga xamante ne war na cee euh, dellu siwaat mu nekk lu ama am solo di njàngat bu ama am solo ci combat boobu combat boobu nga xamante ne renvoyé nañ ko yaakaar naa ni euh, bu euh, incha allah corona bi jàllee moom la ñuy ñaan di ci farlu bu baax a baax di leen ko wax di ko wax sama bopp li nga xamante ne digle la yu ministre bi euh, ministre de la santé ak autorité yi joxe ñu daal di ko respecté parce que lu ñu mën a def ba corona bi dem dañ ko war a def parce que boo leen bàyyee xel fu mu toll nii ñu ngi ci couvre-feu 20 ñu def couvre-feu vingt heures six heures du matin te ñëpp xam nañ ne mën ngaa entraîner naam ci journée bi mais bu arrêté wul ba ñu dugg ci koor gi problème ñëw parce que bu fekkee mbër nga wala ngay sportif tout simplement entraînement mun nañoo wax daanaka dana dakk wala sa biir kër ngay entraîner te du doy ci yenn sportif yu au niveau yi rawatina mbër yi parce que mbër yi bu koor gi ñëwee danañu woor journée bi guddi gi ñu daal di dem ci plage yi entraîner waaw léegi buñ ñu teree. ñu génn à partir de vingt heures donc problème ñëw na donc en quelque sorte loolu lañ leen indiloon tey euh, ci li nga xamante ne euh, moom mooy taxaw seetlu bi taxaw seetlu boobu nag jëm ci combat Papa waaye nag li may tëjee taxaw seetlu bi mooy combat bu neex boo xamante ne indiloon nañ leen ko muy njaaytin njaaytin nekk mbër bu ama am solo mu bëre combat bu ama am solo digganteem ak Albouri mu nekk combat bu méttee métti combat boo xamante ne dañ koo bëree gars yi indiwaat ko ñu doon ko seetlu nag ci VIP yi duñ koy gis lu bari mais Ndiaye Tine indi na combat ak état physique bu am am solo ma may loon loolu ñu daal ci tàggatoo mbokk yi. Alboury écurie Songane Gueye Alboury e ñu ngi xeex xeex nañu sànq Alboury lang na sànq moom Alboury sol na Ndiaye Tine xeex nañu léegi léegi Ndiaye Tine Alboury jàppante nañu combat bu gaaw Alboury écurie Songane Gueye ak Ndiaye Tine mu ngi door la may nga ak njaay bu maroos attention ak Ndiaye Tine Alboury ak Ndiaye Tine attention Alboury Ndiaye Tine jàppante nañu ñoom ñaar Alboury Ndiaye Tine ngi na tekk Alboury Ndiaye mu ngi fi taxu épreuve force attention épreuve de force ah oui épreuve de force attention mu koy faaxat oh mu koy faaxat bañ na Ndiaye Tine Ndiaye Tine faaxat na ko sànq waaye Alboury bañ eh, eh. ngemb waaye Alboury amul ngemb jàppul ci ay gàllaaj la jafandu combat bi yomb waaw waaw roofoo nañu nag Alboury am na ngemb waaw waaw combat bi yombul munas arbitre atte na toowaat arbitre waat nañu ngi leew toowaat attention xeex Relonge Ndiaye Tine dafay jouer dinañu ah oui entraînement bu fen léegi Albouri waaw waaw ak Ndiaye tout cas Ndiaye Tine Albouri ñu ngi leew tawaat waaye combat bi ko attention ah waay daan na ko ah waay daan na ko